فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون dambaal ji nga xam ni sànq daf maa woo ni ma bu ñu ko fekkee jàmm déwén yëpp ay kilomètres laa koy def dambaal jooju nii lu ma am Cheikh Mamadou Lamine Bara ñu ngi koy ñaanal bu baax waaye Mbakke Cheikh Mamadou Bachir sama sëriñ bi waxtu wi jotee nga jiite bi lay sëñ Bara ànd naa yow julli alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa moolana muhammadin wa wala asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu kilifa yu baax yi fi teew yëpp di jiital Cheikh Mamadou Bachir ibnu Cheikh Abdoul Qadir mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi di jaar la ci siyaar ak nuyu bi ñu koy nuyu ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Mouhamadou Amine Ba di ci jaaree di nuyu mboolem kilifa yi fi teew yëpp ah xam naa ndigal moom jëfe rek la sant rawatina ku mel ne man mi nga xam ne sama daara yi way jura ngi woon fii jege lool bokkoon ci jëwriñ yi daan liggéeyal Cheikh Amadou Fadal eh, ci mbay lu ci ñore yóbbu ko ci jumaa kon bu ma njabootu Cheikh Amadou Fadal sante dara euh, danañ ko jëfee ndax dañoo gisoon ne kàddu yi sëriñ jaaja wax daanaka doon sëkk ak kàddu yi nga xam ne moom mooy bëgg a ñëw li ñuy def nag lu am solo la mooy fàttaliku euh, fàttaliku ci koo xam ne dana fàttaliku képp koo xam ne ngëm yàlla mi ngi ci sa xol buñ la fàttalee da nga fàttaliku waaye koo xam ne nag safaan ba wala yaadu billah moo nekk sa xol buñ la fàttalee da daw foofa da koy won ginnaaw ba la la cay dal dal la wa dakkir in nafaati dikra sa yadakkaru man yaxsha wa yatajannabuha lashqa alladi yasla annaar alkubra tumma la yamuutu fiiha wala yaxya fàttali ku ñu mel nii dana baax lool ngir yu bari képp koo xam ne sa xol dana dund sa roox di dund sa ngëm yàlla di dund dana tax bu baax a baax nga mën cee jële ay bind yu baree bari bu dee dañ daan toog nii Cheikh Mamadou Amine Baara toog ñu daan toog nii Cheikh Mamadou Bachir ibnu Serigne Cheikh Moustapha Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Bachir toog seen personnalité seen daraja ya seen juddu yu rëy ya seen xam-xam ya seen jikko yu rafet ya teewul ñu dem ba ñun ñu des fi ñoom ñu jiituñu képp koo xam ne yaa ngi xalaat cay am ay ibar ci lii dox dana tax ba àdduna du la këf dana tax ba doo soppeeku dana tax ba seytaan du la mën a dara dana tax ba nga moytu sa bànneex dana tax ba lépp lu la mën a wër ak lu mu rëy rëy nga bàyyi xel ni ngay maîtriser sa bopp bay la fi borom bi subhaanahu wa taala indee woon muy jaamu yàlla nga sax ca guddi ne ca bëccëg nga ne ca di jëf ndigal yàlla yi di bàyyi ab tereem ca xam ne yàgg-yàgg danañu fekk kilifa yooyee loolu yu mel nii ci suñu yëg-yëg yi bu baax a baax ginnaaw dañ daan ñëw di toogandoo ñoom di waxandoon ñoom defandoo ak ñoom lépp sëriñ Alxaaji Baara mi wax nag ñu wax ci tuuti lu yomb lay doon ndax kum doon ci mbooloo mi fi teew jëf nga ak moom séq nga ak moom loo xam ne mën nga koo wax fii muy lu rafet ku ne xam na ne borom jikko yu baax la woon jikko yu sàll jikko yu rafet la woon ni mu daan jëflante ak doomu aadama yëpp ca loolu ku ne mat na ci seede ca doomu aadama jikko la doomu aadama jikko moo yëkkati darajaam moo koy kaweel moo koy yëkkati ca fa gën a kawe waaye nag suufeeg jikkoom ak doyadi jikkoom moo koy sippi jëlee ko fi mu nekkoon ci ab juddu wala fa mu nekkoon ci xam-xam fa mu nekkoon ci daraja wàcce ko ba mu gën a suufee te dara war wala lu may jikko yu suufee sëriñ Bara na yàlla degoon na jikko yu rafet la yoroon yoo xam ne ku nekk xamoon na ko ci ñoom ci moom. man su cee wax tuuti rek ndax sàmm suñ diggante ak li nga xam ne moom moo di waxtu yi bokk na ci jikko ji ci gën a ràññeeku mooy bari yërmande bëggul woon kenn nekk ci fitna loolu ku ne xam na ko kenn ku mas a nekk ci fitna bu ko yégee daf koy jaral bàyyi ay yitteem yëpp nekk sa yitte ba say say say yitte saafara bariwaane ñoo xam ne ci Touba bu ñu amee téléphone ci ba muy jafe jëmmam ja ca la jaare dox ca ay jéego taxaw ca daan fa xëy waxtu wu nekk di lijjanti ay doomu aadama boppam tax koo jóg waaye mépp mbokk moo xam ne am na yitte jooju ca mu jafe ci yow sëriñ Bara bàyyi yitteem yëpp di fa xëy waxtu wu nekk ba mujj wutal ko fa barab ba mel ne dañ ko faa dañ ko dafay far di liggéeyee ca dara waralu ko woon lu may bañ doomu aadama yi nekk ci fitna rek loolu moo ko waraloon kon yërmaane ju ju kawe loolu feeñoon na ci moom bu baax a baax a baax waaye bokkoon na ci jikkoom yu mag mooy ñeme ab diisoo sëriñ Bara loo nekk nekk xale danaan nangoo diisoo ak yow nga ñëw wax mu mu jël li nga wax teg di ci waxtaan ak yow di ci waxtaan ak yow ba boo indee xalaat boo xam ne jàpp ne ne moo gën a rafet sa bopp mën na laa tooñ sax ne la convaincre nga ma tey de waaye à la prochaine fois nag moom nangam ak nangam nga xam da wan ne kon xelum doomu aadama wa amruhum na baynahum ak wa shawirhum fil amri sëriñ Bara daf ko daan jëfandikoo ci ci amul woon xeej ak seen nag loolu amul woon xeej ak seen lépp bari woon ku mën a daan dimbale nit la ca dimbale gi ko woon ci comme comme xam ak kum xamul man mii di wax am na koo xam ne dama dama ko faa yóbbu mu nekkoon koo xam ne ay ay ay jumtukaay yi bëgg a jàngi lool bourse dong mu tëkko waaye mustawa bi tubarkal la niveau bi mu am tubarkal la waaye ay moyen ak loxoom jot fa nga xam ne fa lay mën a e, jaare ngir jot ca loola waaye bi mu ñëwee ba jox ko lettre bi ba mu jàng ko ba noppi moom néewut néewu ko bu ba néewu ko dara fa saas la di woote lijjantil ko mbiram jataay bi nga xam ne keroog keroog koo la ma sëgg Alaaji Baal te dara waral ko lu may wane ne moom yittey doomu aadama yi ay yitteem la woon bokk na ci lim gënoon ràññi ko mooy dëddu àdduna dañuy wax ne dëddu àdduna nag yombul àdduna bari waa na koo xam ne day nuru ko dëddu àdduna fekk ne àdduna moo ko dëddu dëdduwul àdduna waaye àdduna bala laa bala ngaa bala nga ko dëdd dëgg àdduna daf lay wut si ci ci mboolem melokaanam yi ca du la ca du la soppi du soppi sa lenn loolu ñu nekk xam nañ ko ci barab bi nga xam ne nekkoon ci këram bi nga xam bari na ci ñun ñoo xam ne kenn ku fa nangoo nangoo woon fanaan buñ la ko joxoon amul kenn ku fa nangoo dëkk amul ca moom boo ñëwee bagage am mu wër ko téere yee wër ko mu toog wéeru ca fauteuil boobee nga xam ne li ci ëpp sax daan fanaane ke dara lu ko du ñàkk fu mu tëdd du ñàkk mën a amub lal du ñàkk mën a am néeg bu baax waaye bàyyi woon xel àdduna loolu ci la bokkoon loolu xam ne ne ay jikko la yu sell yoo xam ne nekkoon na ko moom alxaji moom la muy baax bokkoon ci ay jikko mi nag mooy am ful la li muy bari bari yërmande li muy lewet lewet nag bu taxaw jotee mu taxaw saa taxaw jotee ci li ko mat du man doon day taxaw ba ñëpp xam ne taxaw na maanaam nga xam ne nit ñu nekk xam ko ci moom bu ma sànni di jëflante koo xam ne it da nga koo gis noonu rek ci melokaan wi ci xamoo ko dalay daal di dalay wax wax moom mooy kan fi saase am na jëmm ju ma sa ñëw ci moom di wax moom waaye la muy wax daal xaw naa ñàkk xam alaaji baara tax mu di mu di ko wax waxin wu doggantalu waxin wu suufe sëriñ alaaji baara daal na ko waj ji waxal sa soxla xamal ne man kat nii ma mel daal di ah, daal di am lu mu wax jiñ ko boppam daal ne ko nii sama kanam gi mel danay mel waaye ginaar gu booful bootul màgg na lewet ginaar gu booful bootul màgg na lewet waxal soxla rek bokkoon na ci it nag gisin yu sore yi mu amoon ci dëkk bi damay faral di wax ne ba mu toogee di wax ne dama bëgg Touba mel ni ma det mun a war maanaam imagination boobu rek maanaam gis-gis boobu gis-gis bu sori boobu yitte ju kawe jooju laneen la ku ñëw ne Touba damaa bëgg mu mel ni ma det mun a war waaye bi mu songee liggéeyu Tuubaa it xam ne ne bu àggul foofa it bu fi bu fi wéyoon de danañ ci gis loo xam ne dana lañ ko lool ndax lim fi jot a def foo xool gis ko te dara wala ko woon pëstéef bi mu toogee gis nañu ni mu giiroo ni mu njëkkanteeg àdduna ndax lan mooy at ay at mag moom li naan mag ku dem mu dem ku demul mu dem waaye ni mu njëkkanteeg euh, àdduna ba diggante bi li muy gàtt gàtt fanweeri weer yi mu réalisé fi loo xam ne a ati at nit mën na koo nekk ci barab ca lu tax nga sottal lu mel noonu loolu dara warul ko mooy pëstéef bu kawee ak aku gu mat sëkk noonu la ko mbir yëpp yi téew woon nag maanaam mboolem liggéey yi daan am ci dëkk bi it moo daan ko seetal boppam daan toog ba ci yàgg mu ne mu ne bu ma kenn topp ànd ak chauffeur bi jàpp dem wëri mboolem liggéey yi del si ma sama toog bis boo xam ne kilifa Senelec ñëw nuyoo mu ne ko dama ko bala maa wax ak yow dara daa am lu ma lay wax boo ju boo jëmee euh, garas Darou Mouhty boo ñëwee ba ci euh, station bi nga jël télé bi jëm garas Darou Mouhty boo jégee doodaan ba am na benn diwteer wala féete sa ndeyjoor pot lampe ba ko tiim dafa dëng ca bu loolu wóorut ci nit ñi mën naa daal xam nga loolu mooy yëg-yëg yi di xool di observer dëkk bi di xool fu nekk gis na lii dañ caa war dañ caa war taxaw loolu nag ay yëg-yëg la mbokk yi buñ ci doon wax moom it mën na si wax lu yàgg-yàgg li ñuy jeexale rek mooy lu am solo li nga xam ne mbokk yi def nañ ko muy lii ñu xewal jël bis tuddee ko say mbokk loolu dafa war a am jeexit ju rëy rëy nañu xam ne ñu xam ne Euh, dundal lu mel noonu ak mbokk gi dox ci diggante ay doomu aadama dañ ko war a fonk dañ ko war a téye dañ ko war a dundal ci lépp loo xam ne moo koy yàq ñu war koo matatu ko bu baax a baax jamono ji nag jamono la joo xam ne dañoo am ay nattuwaay yeneen yuñ teg suñ kanam jëlatu nattuwaayu judd bi jëlatu nattuwaayu jikko jëlatu nattuwaayu xam-xam waaye nattuwaayu adduna lañ teg suñ kanam ba nga xam ne daanaka sa mbokk bala ngaa ànd moom da ngaa tolloog moom ci nattuwaayu adduna yooyee bala ngaa jaxasoog moom danga ngaa tolloog moom ci nattuwaayu adduna yooye bala nga koo fekki da nga tolloo moom ñetti waay adduna yooyee loola nag du na nañu bàyyi xel ne Serigne Touba radiyallahu anhu nee na woon mbokk mën naa ñett mbokkam waaye mënut a ñett mbokkam nee na mbokk mën naa ëpp la ay mbokkam waaye mun leen ëpp wax ju am solo mën naa ëpp la ay mbokkam man nga leen ëpp daraja man nga leen ëpp xam-xam man nga leen ëpp alal waaye mënoo leen a ëpp nee na mbokk mën naa gën ay mbokkam waaye mënu leen a génn man ngaa gën say mbokk waaye mënoo leen a génn dem ba ci àgg nga ne maag diw bokkutuñ dara mënut a na bu bu àndutoo ci bu nee na mën naa raw ay mbokkam waaye bu àndutoo ci mbokkam aw doxinam du rafet kon nag lii lu am solo la jàngal ndaw ñi ñu xam li ñu bokk lu àdduna rëb-rëb lu àdduna soppiku soppiku ñu téye ko fonk ko jàpp ko lu am solo la mbokk yi ñëw ngi jégalu bu baax ndax bëgguñoo guddal ci waxtaan yi ndax waxtu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne Fallou am na pay 45 la toog ci xalifa gi ni kuur ba ndang raf la meng ji ba muut dasa sas ba nar juróomi sooroor sang Fallou walil walil caabi doog fii jóge ay géey yàlla la sëñ Fallou Faye sant nañu bu baax kon ñu jox kàddu gi ki fi teewal Serigne Moustapha mu Cheikh Mamadou Bachir Serigne Moustapha nag ak njabootam da jàmbaar jooju daf ma waxoon benn bis Khadim Dia yow itam ñi ngi lay siyaare moom Alaaji Mbay Dia Alaaji Mbay sa baay ku ne xam na ne lu mu am sëñ Fallou Dia bi ma la gisee sama yaram daw na ndax sa baay sëñ fan rek a koy dundal ma ma seyaar sëñ Moustapha Bachir Poroxaan ñuy teg yi xaalis yi may xool xaalis bi rek ba mu yàgg mënuma ma peex ma ne ko saa bët yëpp ngi ci gaal gi mënu ma lii ñu may jox Poroxaan xam nga nu mel la ma ne ko nu mel mënu ma laal ko ak dajji gaalu jaambur laa yemale lépp sëñ Bachiroo ko moom kookoy Serigne Moustapha daal di ni ma nag danaa la woo ma tu fekk ma Touba ma ñëw Touba nuyu si ko mënu ma dugal ci warag wi yetti fas yi naaru góor a ngi fi tànnal lu la neex ma tabbi rek yem ci leen ni ngelambu ma jàpp ci buum ka ndeke ma génn mu ne ne woon naa leen bu peex ñëwee ngelambu lay jël xaadim borom imam aram sali siin ba bala si bur sëñ Mbàkke maaram sëriñ bi bisimilah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadir sa doom yu baax yii te Serigne Saliou Mbacke jiite leen ak nun dong yi ànd ak ñoom noo ngi jéggulu di ko jaarale ci cheikh Moustapha moom cheikh Mouhamadou Lamine toogaay gii toog ak yéen ci kaw te muy ngànt noo ngi koy jéggulu loolu lañu ñu waxoon ne na doon li may jëkk a wax li ci des mooy njabootuk cheikh Mouhamadul Bachir teew nañ fi. muy lenn ci ñim jur seeni jur yu góor ak lenn ci ñim jur seen jur yu jigéen ak lenn ci seex yi dëkk ci kër gi loolu limoon nañ ko du jar dellu ci jëf ju rafet ju réy jii nga xam ne njabootuk seex Mouhamadul Lamine moom seex Mouhamadul Fadal def nañ ko jëme ko ci kër seex Mouhamadul basiir ci njabootuk seex Moustapha Mouhamadul Basir sëriñ bi délégation bii teew nañ fi ci turu seex Mouhamadul Muntaqa teyit mu wax ne bu ko ko ak cawarte mayoon jëmmi sëñ Moustapha ji jaral na ko teew fi jëmmi sëñ Mouhamadou Lamine jaral na ko teew fi sëriñ Moussa mi nga xam ne mooy ki mag ci kër sëñ Moustapha Bassirou itam defe naa ñëw na fi démb siyaar si la tey mu yabal rakkam yu mbokkal sëñ Bassirou yëpp ne leen nañu ñëw teew si fi sa kanam di la sant ci jëf ju rafet jii nga xam ne def nga ko muy jëf joo xam ne ci sëriñ Falilou ak sëriñ Basiiru la tàmbalee woon wax nañu ne sëriñ Basiiru dajale na ci jamonoy sëriñ Touba juróom-ñaar fukki dërëm di ko yët sëriñ Touba fekk fa seex Muhammadul Moustapha ak seex Muhammadul Fadil sëriñ Touba ne ko da nga koy jox Muhammadul Fadil mii mu joxal malo la ko kon ko ñooñu sëriñ Touba leen boole woon. loolee di wéy ci diggante sëriñ Fallilu ak sëriñ Basiiru ba yàlla dogal seex Mouhamadou Lamine ak rakkam ju baax jii di seex Moustapha basiir ñuy wéyal loole lu romb juróom benn fukki at ndax dégg naa ci làmmiñu Alaaji Baara radiyallahu anhu mu wax ne ba mu dalee dikk Poroxaan di fa fekk sëriñ Basiiru ak bi mu dalee ñëw njaareem di fekk si sëriñ Basiiru ak mu jëm wax na ne romb na juróom benn fukki at boobaak léegi kon loolu sëriñ bi lu yàgg la boo toogee ba tey nag bis bii nga xam ne yoonu murit wépp la ñor yoonu murit mépp a ko bokk nga tànn ko jagleel ko sa sa wayjur wu baax woowu di Seex Mustafaa Basiru na nga xam ne njabootug sëriñ Basiru gépp seen xool sedd na ci e, seen xool sedd na ci teyit wane nga yoon woo xam ne li ñuy wax ci sa baay waxtu wu ne muy Seex Mahamadou Lamine muy ak woyof akuk baax akuk dëggu akuk sàmm akuk bëgg mbokk lépp wane nga ko tey kon sëriñ bi na nga xam ne lii bunt la boo xam ne euh, yoonu murit yëpp waxuma ñi sant Mbàkke waaye yoonu murit yëpp war nañ cee jaar di ci roy sëriñ Mouhamadou Mountakha nag ak njabootu sëriñ ba Basiiru ak sëriñ Moussa mi nga xam ne moo mag ci ay sëtam wax nañu ne bis bii lu rëy ci ñoom la te duñu deñ di ko fàttaliku mukk ñu ngi lay ñaanal yoon wii nga xam ne ubbi nga ko muy yoonu jokk bokk ndax ñoom mag ña doxoon nañu waaye jàpp nañ ne eh, na ma yàlla baal li ñuy tudd ay gone yaa ci jëkk a jokk ñi ngi ñaan nga yàgg koo jokk ci barkeb sëriñ Touba. ñi ngi ñaan lépp loo xam ne Alaaji Baara ak sëriñ Moustapha yéene woon nañ ko ci yoon wi yéen ñaari njaboot yii ak njabooti sëriñ Touba yépp yàlla sàmm leen ba lépp ngeen yeggale ko ci jàmm salaam Eh, sëriñ Moussa ak sëriñ Mountakha sant nañu ci jëf ju jii maa ngi jéggulu nag ndax xatu waxtu wi ak it ñàkk a xam lu may wax ak xol bu sedd ci jëf ju jii nga xam ne jëf nga ko waaye dama ne du ko ak bokk rek li ci yàlla sunu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci doyoon na nga dox def ko def defin woo xam ne nag mën naa ne yoonu murit yépp nga ko defal ndax njaboot yi fi teew tey di njabootu sëriñ Fallilou ak njabootu sëriñ Bassirou ak mbooleem njabootu sëriñ Touba gi jaxasoo nañu ci seen biir jaxasoo koo xam ne jokk nga ci tey jokk koo xam ne ay tànk rek mënu ko kenn ku ne yor tànk di ko dox mënu ko jataay bii rek moo ko man kon bi la yàlla defalee feex ci barkeb sëñ Touba yàlla xiir la ci nga def ko defin wu rafet wii njaboot gépp sant nañ la ci maa ngi jéggulu nag lépp loo xam ne dëng na ci wax ji wala mu manqué ci ci man mii la waaye du ci ñoom waaye li ñu bëgg a firndeel daal mooy na nga xam ne kër sëriñ Basiiru gépp dellu si nañ di leen joxaat loxo ni ki nga xam ni la sëriñ Basiiru joxe woon Cheikh Mahamadul Fadal loxo ñu ngi leen di diglu ci lépp lu ngeen ne di leen diglu ci seen i xalaat di leen diglu ci seen i bëgg-bëgg di leen xamal ne bokk gii nga xam ne yaa ngi koy jokk fas nañu yéene ànd ak yow ak njabootu Cheikh Mahamadul Lamine ngeen di ko wéyal ba ba ngeen di fekk seen maam yu baax ya yàlla na loola yeex nag ci barkib sëñ Touba yàlla sàmm yoon wépp ndimbal li nga xam ne yàlla dig na ko jullit yi yàlla bu ci kenn ëppale njabootu sëriñ Touba. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon li ci des kilifa yi ñoo ko war a wax man loolu lañ ma yónni woon ci yéen muy ak cant jërë ngeen jëf. sekk ñu ngi lay dalal sa sa xarit baa ngi Cheikh Mamadou Bachir moo ma booleeg yow nga jàpp ma toogaay bi rafet na da ngaa fekk nag ñuy wane jaar-jaar yi sëñ Baara. xam nga cérémonie officielle am na mais seere mi ngi tey laa ko gis seere mi ngi bu see bu seere bu seere booy def cérémonie ka ngay defal cérémonie da ngay indi seereem soo ba tey seen baaraa wax sa xol sa ngor sa yar sa jom sa dal may na la lu ne ziyaar bu baax Cheikh Mamadou Lamine Bachir di ko wax mu jottali sunu ziyaar ak sunu njébbal ginoo noo feddali Serigne Cheikh Seydi maxtar yàlla na fi yàgg te ñu ngi nuyu bu baax sëriñ Moustapha di nuyu mbokk taalibe yi fi nekk yépp di nuyu Serigne Saliou mu saaba Moussa Bachir sëñ Moussa yónni bi mu la fi yónni nga ñëw teewal fi juumul sëñ Moussa du juum ku jàng la ku xam la ci sëñ Moussa Bachir sëñ Saliou moo jox Serigne Baara muy tey bésu sëriñ Baara ñu tudde ko sëñ ba Bassirou yow sëñ Saliou nga teewal ka fi loolu lu rëy la man damay wax ni sëriñ Baara awma ma fayam daf ma bëggoon ngir sëriñ Touba fu ma ko gisee bala may agsi min ma murit saadix loolu nag ma bëgg ko di ko dund ba su ma ko daan wax sama xol dafay sedd ba daaw ma man dox damay raam ba agsi moom jëmm jooju nag damay wax ni dafa nekk un être exceptionnel lu luy être euh, luy un être exceptionnel mooy koo xam ni danga koy wër di ko wër te gis ko jafe la wuutu sëriñ Modou Bousso Dieng wuutu sëriñ Saliou kan moo fi mënoon wuutu sëriñ Saliou jëmm jooj nga xam ni léppam yàlla la waaye sëñ Baara bi mu ñëwee la tubaab ba doon wax la jëkk weddi tubaab ba dafa doon wax ni sëriñ tubaa su làqoo àddina yoonu murit tas kenn dootu ko dégg am ñoo xam ni bi fi sëñ saaliwu toogee dañu wax ni suñu daldi sunu gisatul doomu sëriñ tubaa yëf yi du dem fenn waaye ba sëñ saali ba sëñ baara ñëwee lan la jëkk def dafa tontul sëriñ tubaa nan la ko tontul sëñ tubaa dañ ko convoke ndar ba moo dem mu wéet mu jaar waa Louga waa Louga bëgg jël gànnaay ni ko danoo xeex ak tubaab bi doo dem min leen bu leen bu leen xeex bu leen yëkkati gànnaay sama digganteek tubaab bi dana mokk rumbax te kenn du dégg kanang mokk na rumbax te gën déggul kanang si jamono sëñ Baara nan la amee président Ablaye Wade di président de la république taalibe sëñ Touba ñëw raamal ko sujjóot ni ko dama bëgg la invité nga ñëw Dakar ba mu ko invité mu woo ambassadeur yëpp woo député yëpp woo ñëpp nu ñëw. mu jóge kolobaan kër suñ tubaa gi dem fu mu romb sama rango ñi day day sotteeku ba nu àgg pale parce que fu mu romb ñu jërëjëfe suñ tubaa kon day woo kii wuute nag woo ban ko woowoon nga xam ni suñ tubaa yàlla fay na ko sëñ baara ku am ngërëm la woon sëñ baara ku bëri yërmande la woon sëñ Moustapha matal nga ko sëkk waaye nag sëñ kéemaanu sëñ baara mooy sëñ Basir mii bi mu koy tànn ku xamuloon àddina ku àddina taxoon ngay tànn da wax ni kii risque la def ndaw gi mu tànn waaye booba xam na ni sa maam sëñ tubaa préparé na la ba foo fort toll daaka liggéey liggéey bu rafet te liggéey boobu moo waral sëñ Cheikh Sidi Maxtaar jël sampaat la sëñ Baara amul moroom sëñ Baara amul moom jërëjëf sëñ Touba. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi nuyu ñëpp. di sant ñëpp di gërëm ñépp di jiital ci cant gi ki waral ndaje mi muy sëriñ Touba di ñaan sëriñ Moustapha di ñaan sëriñ Galas ñoom ñi ràññee ne sëriñ Baara am na doom yu santul mbàkke ba bu bis bi ñëwee ñu wër doom yooyu boole leen ci bis bi te loolu tax ma tàbb fi maa ngi leen di jox ngërëm lu ma tibbe ci sama xol di leen ñaan ngeen jottalil ma ko njabootu Serigne Bara gépp di ñaan suñu wëllëre bopp Cheikh Abdou Khadre yàlla na ma ko yàlla fayal cofeel gi mu am ci man ak ni mu ma koy wane jamono ju nekk te yow Ablaye nga ciy seede bàcc gajaga di ci seede ñépp di ci seede maa ngi ñaan yàlla mu fayal ma sëriñ Ahmadou Mbàkke mi ma àndal tàbb ci tànt bi di ñaan yàlla mu fayal ma sëriñ Moussa Mbàkke naawel sama bunt ci yoonu Serigne Touba dina ma ci jox ay bind yoo xam ni junniy ati taalibe du tax nit xam ko ci sëriñ Touba donc yal nañu ko yàlla fayal yéeneem ci ñun yal nañu yàlla fayal mbokki taalibe yépp ci seen teewaay ci bis bi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan Serigne Cheikh Bass Abdou Khadre porte-parole du khalife général des Mourides nga jottalil ñu suñu nuyoo suñu ziyaar ak suñu taalibe Serigne Sidi maxtar Mbacké yàlla na fi yàgg yàgg lool te wér ba mottali liggéey bi nga xam ni moom la jëlee ci suñu maam sëriñ Touba allahumma salli wala sayyidina muhammad wa sallim. ñi ngi nuyu mbooloo mu tedd mi fi teew yépp ci turu président de la république son excellence Macky sàll mi ñu yónni fii tey délégation bi lim nañ ko léegi ñu ràññee ci bu baax le ministre Khadim Diop ministre de la restructuration et de l'aménagement des zones inondées ñuy seede fii liggéey bu rafet bu muy def ci gouvernement bi liñ ko dénk dafa metti dafa jafe muy mbirum inondation te ñépp gis nañu taxawaayam bi mu ci taxaw ak résultat yu baax yu leer yi nga xam ni am na ko ci ci li muy appliquer programme président de la république Macky Sall ràññee nañ ci tamit ci délégation bi tudd nañ ko fii député yi ànd ak ñun ak préfet bi ak sous-préfet ak service yi nekk fii yépp président de la république dafa ma wax ni boo demee Touba ci bisu sëriñ Baara na nga jël nuyoo yu gën a sell tegal ma ko ci njabootam te sëriñ Moustapha teewal leen fi ñoom ñépp te ñu ràññee ci ay rakkam gën ci ràññee nag sëñ Galas Maktoum nga xam ni moom it député la à l'Assemblée nationale te mu wax ñu ni bu ngeen jëlee nuyooyu boobu ngeen tegal ñu ko ci loxoom moom sëriñ Moustapha mu teg ko ci loxo sëñ Bassir Abdou mu tegal ñu ko ci loxo yu sell yu sëriñ tuuba ak sëñ Cheikh Matiley Mbacké yal na fi yàgg te wér kon nag sëriñ bi délégation bi président de la république yónnee mi ngi firnde rek cofeel ak kóllëre gi mu am ci njabootu sëñ Touba rawatina nag ci njabootu sëñ Baara Mbakke yal na yàlla yokk ay leeram cérémonie bi ñu teew tey ci jaar-jaaru sëñ Baara biñ ñu wane léegi te xam nañ ni bu dul woon temps bu gàtt mënoon nañ fi toog ba suba wala ginnaaw suba ñuy wax ci lu rafet ci lu baax ci sëñ Baara Mbàkke wante buñ du amoon ñaari yëf yuñ ci war a jàpp rekk ci wax ji lépp ci li ñu wax ci sëñ Baara benn bi ci am solo te yaakaar naa ni ñépp ñi fi teew jàpp nañ ko mooy oyof wax bi benn la seede yi fi jaar yépp wax ci moom wax nañ ni sëñ Baara dafa oyof ñaareel biñ ci war a mën a jàpp mooy wax nañ ni sëñ Baara Mbàkke dafa fonkoon dimmali néew ji doole yaakaar naa ni ñaar yooyu yu am solo la ci li nga xam ni moom lañu ñu seede sëriñ bi président de la république son excellence Macky Sall ngi leen di gërëm di leen sant gis naa tamit ci seede ñi wax léegi fii ñu seen ko fi moom bi muy wut Sénégal ñëw sukk ci kanamu sëñ Baara wax ni ko moom da day wut Sénégal wante li muy ñaan mooy jàmm ak teraanga li ko sëriñ bi tontu tamit ñun ñëpp dégg nañ ko wax na ni day ah fii de ku fi ñëw di wut pour looy liggéeyee Sénégal day li ngay wut day du niin du nul yàlla def na nag fal nañ ko mu doon président de la république kon mel na ni ñaanu sëñ Baara yooyu ñaan googu jàll na ñuy continuer it di leen wax ni président de la république day am na ci qualité yooyu nga xam ni ku nekk ci ñun war na koo roy ci sëñ Baara mooy oyof te it xaw ci dimbali néew doole senegal yi ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku seen Cheikh Mati lay Mbàkke xalif général des Mourides seen Sidi Cheikh seen Sidi Mokhtar Mbàkke seen Cheikh Mati lay Mbàkke xalif général de Mourides ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku am na lu mu wax muy daaw. mu wax ni bëgg na nit ñi dellu ci mbay wax na ko daaw wax na ko ren yaakaar naa ni loolu président de la république mi ngi ci taxaw ndax ñëpp d'accord nañ ni Sénégal pour mu développer mbay moo ko war a développer rawatina nag. mbayum gerte mbayum gerte moomu président de la république sëriñ bi mi ngi ciy def lu am solo ngir nit ñi dellu ci loolu li ci mujj mooy njëgu gerte jiw bi mu wàññi ñëpp xam nañ ni ñeent fukki dërëm lañ ko doon jaayee baykat yi ren jii ñi ngi koy jaaye fanweeri dërëm baykat yi matériel bu doy ñi ngi ko indi pour jàppale baykat yi pour ñu dellu ci suuf def mbay am ci njariñ ndax Sénégal mënul développer te kenn fonkul mbay bi ci des mooy néew ji doole yi ñi nga xam ni dañu dëkk ci ay dëkk te luwaas bi doon leen seer ci ñoom wàññi ko sëriñ bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ni def na ko ngir jàppale askan wi ba tax na ci jataay bi sëriñ bi ñi ngi sàkku nga ñaanal président de la république jàmm am ci Sénégal ak salaam jàmm am ci Afrique jàmm am ci monde bi yépp ndax fu jàmm amul dal amu fa ak lu ñu mënti def du amal njariñ nit ñi ku weddi xool li am ci yeneen réew yi nga xam ni jàmm amu fa lu mel ni Centrafrique lu mel ni Mali gii nga xam ni moo ñu gën a jege ñuy ñaan jàmm am ci Sénégal ngeen ñaanal ko président ñaanal ko gouvernement bi ñaanal ko képp kuy sénégalais nekk fii ñu ngi leen di gërëm di leen sant allahumma salli ala seydina muhammad wa sallim soññeente feddalu suñu pas-pas rek ko tax a jóg Cheikh Mouhamadoul Bachir mi nga xam ne moo fi teewal ak Cheikh Sidil Muxtaar ñoo ngi koy nuyu ci nuyu bi gën a tedd te di ko jottali ay nuyu Serigne Moustapha yu jëm ci Cheikh Sidil Mokhtar te di ko yóbbante ay cant ak i ngërëm ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw na ko ci bis bi nga xam ne am ñu lu moom di ko yóbbante tamit ak cant ak ngërëm ci Serigne Abo Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke mi nga xamante ni moo yor liggéeyub sëriñ Falilou bi ak njabootuk Serigne Fallou Mbacke gépp di nuyu bokk taalibe yi di nuyu bokk julli nuyu bokk taalibe yi di leen sant te di leen gërëm ci ni ko sëriñ Baara Mbàkke daan waxee rek fii lu fi am taalibe yi bis bi bi sëriñ bi jotee ndigal di ko waaj ànd ko ànd njaboot gi boobu ba léegi amul benn bis bu mu dul xëy suba ba ngoon te du gis ab taalibe bu jóg wut li mu am yéene ko sëriñ baara yët ko ko ngir sëriñ baara kon mi ngi sant taalibe yi cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem waaye nag ci ñi mu ko sañe digal di soññ boppam di leen soññ ci ak jaamu yàlla di leen soññ ci ak jub di leen soññ ci ak jubal te di leen soññ ci ak rafetal te di leen soññ ci ñu am yërmande ci ñi ñu jaboote waaye ñu am ndimbal ci seen diggante ak ñi jaboote te ndimbal li li ci jiitu mooy sottante xel ak xalaat bu rafet ba li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa room jullit waaye rawat na sama room taalibe loolu sëriñ bi mu ci ciy soññ boppam di ci soññ képp ko xam ko war na la koo digal bu kàdd yooyu jàllee mu ngi yëkkati ay cant yoo xamante nii da koy tit bi ci xolam ak ci turu njaboot gi yëpp di ko jëmee ci jëm ji toog mu Cheikh Amadul Bachir moom Cheikh Abdoul Xaadir ci ànd bu rafet bi nga xamante ni àndoon na ko ak sëriñ Baara ci nekkuk sëriñ Baara ba gisatuñ Serigne Baara ci Zahir ci si ay bët nekkin woowee mu àndoon ak moom la àndewaat ak njaboot bi ci jëf ju rafet joo xamante ni saa su ne mi ngi koy jëf ci njabootuk sëriñ Baara gi waaye rawatina bis bii nga xamante ni amuñu lu dul moom muy bisub sëriñ Baara bi. Serigne Moustapha nee na jëfi Cheikh Mouhamadoul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir mii mi ngi koy seereel xalif général de Mouride di ko seereel taalibe yi Serigne Touba yi waaye di ko seereel njabootu Cheikh Abdoul Lamine gi ceere goo xamante ni gii euh, yàlla rek a tax ndax bi muy ànd ak way juróom fi la ko fekk bi way juróom làqoo jëf yi muy jëf ci wax ak dox ak jëf yu ànd ak yéene ci kër sëriñ Bara gi rafet gu mu rafet tax na mu koy seereel mbooloo mi li tax mu koy def nag naam war na sëriñ Bas waaye am na ñu mu war ñoo xamante ni ni ko sëriñ Bas sax di defee xëy na euh, mënewuñ ko noonu waaye am nañ yéene ja waaye li tax mu koy sant mooy nit bu jëfee li mu war a jëf jëfe ko fi mu ko war a jëfe jëfal ko ki mu ko jëfal mu toog ci mbooloo te war a joxe ay kàddu sant war naa jël kàddu cant yooyu jëme ko ci moom kàddu yooyu nee na yi tamit ñu ngi koy mi ngi koy yëkkatilu di ci sant jëwriñ yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir kër Serigne Bara te jëwriñ yi ni mu ko waxee woon sànq ki ci jiitu muy Serigne Cheikh Ndindi di rakkam ak sëriñ Serigne naa ak njaboot gi topp ci moom yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw sëriñ Bachir sëriñ Moustapha nee na ngi lay seere cant yooyu te nee na di sàkku nga ñaanal ko te ñaanalul ko ci Cheikhul Khadim ci njabootuk Serigne Bara Mbacké gi yàlla defal leen tawféex defal leen fan wu gudd sàmm leen yiir leen nàmmoo nekk ci seen kanam yore liggéey bi waaye mu ngi leen di sàkkul ñaan ñaan goo xamante gi bëgg na yàlla dolli ak wér njabootu sëriñ baara yàlla dolli leen jàmm te defal leen xéewal te saxal leen ci ak taalibe bi ba faaw ndax loolu ci la sëriñ bi doon dund bu loolu jàllee mi ngi seere ay cant yu jëm ci xaadim géey mi nga xamante wëy juram la àndaloon ànd boo xamante ni bii fii la ko fekkoon waaye gise na ci aw doxalinam doxin woo xamante ni na mu àndee woon ak Serigne Baara bi mu ko gisatut amatul lu mu ciy sot lu mu ciy soppi lu ci yokkul wàññiwu ko nee na mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm te di ñaan li muy jëfal sëriñ Baara yal na ko ci yàlla defal lu kawe njortam di yëkkati ay kàdduy sant nag yoo xamante ni mi ngi jëm ci Serigne Mountakha moom Cheikh Amadou Bachir. te di ko teg ci kàddu ci loxo yi sëriñ Moussa Mbacke naawel moom Cheikh Mouhamadoul Moustapha moom Cheikh Abdoul Bachir kàddu yi cant yoo xamante ni mbokk gi moo ko lal naam waaye doxin lañ wi ak doxin wi lal na ko ndax bi mu yëkkatee xalaat bii yabal nu nu dem ci moom joxoñ ñu ay kaddu yoo xam ne dañ ko war a wax sëriñ Moustapha nu ànd ak sëriñ Bachir Tib mi rakkam kàddu yi mu ñu yónni woon bi nu ko waxee sëriñ Moussa da koo rafetlu ànd ci ànd ci xol bu sedd ba dikkal fi boppam di fedde li loolu boole ko ay jëf yu mat yoo xamante ni jëf ju ci ne defar na bis bi ndax xam na ne kër gi kër Serigne Moustapha Bachir kër gi kër Serigne Moussa la kër Serigne Moustapha Bachir ndax kër Alaaji Bara kër Serigne Moussa la ndax kër Serigne Moustapha la ñu ngi koy sant di ko gërëm di yëkkati kàddu yi di ko teg ci ndawam lii mu fi yabal ànd ak njabootuk Serigne Moustapha moom Cheikh Abdoul Bachir kenn desul du góor du jigéen ñu ngi leen di sant te di leen gërëm di yëkkati kàddu ay sant ak ñaan yoo xamante ni mi ngi koy jëme ci nit ñi dëkk ci dëkk bii di Aliya ci taxawaay bu rafet bi nga xamante ni taxaw nañ ko ci bis bi ci lépp loo xamante ni santoon na leen ko ngir ñu war koo taxawoo bis bi saytoo ko ko setal dëkk bi te yaatal seeni kanam yaatal seeni kër ngir daloo gan yi yëg na ne loolee lépp matale nañ ko waaye nag di yëkkati ay cantit di ko jëmee ci doomi boppam muy Serigne Moustapha moom Serigne Mbacke Soxna Lo ci taxawaay bu rafet bi nga xamante ni bii taxaw na ko ci bis bi ci yabal fi ak njabootam kenn desul mu xamal leen ne leen li Serigne Moustapha di defal Serigne Baara sama maam man la koy defal dem leen fa ngeen nekk fa lépp loo xamante ni luñ fa war a def la wala luñ leen defloo na ngeen ko def barki démb ba léegi ñi fi lépp lu leen waroon. def nañu ko Serigne Moustapha mi ngi leen di sant di leen yóbbante cant goo xam ne mu jëm ci Serigne Moustapha Mohamed di ko ñaanal di ñaanal waajuram woowee di xaritam doo doonoon xaritam muy Serigne Mbacke Soxna Lo na ko yàlla dolli ay leer te yàggal Serigne Moustapha gannaawam te rafetal ab liggéeyam ci gannaaw Serigne Mbacke bu loolu jàllee Serigne Moustapha mi ngi yëkkatiwaat ay kàdduy cant yoo xamante nii am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ki muy sant nag. mooy président de la république Macky Sall. cant gi nga xamante nii la yëkkati ci xolam di ko sant euh, naam war na ko ndax président de la république tous les sénégalais la waaye daf koo war ngir li mu gis fii ñu wane ko wala boog li nit ñi gis fii ndax moom am na lu mu fekkee woon démb lii soog a feeñ. ndax lii ñu wane am na taxawaay bu ko jiitu boo xamante ni bii Serigne baara taxawu na ko ci doomam jooju muy président Macky Sall muy taxawaay bu rafet di taxawaay boo xamante ni bii jëf la joo xamante ni feeñ na ci nekkin wi mu nekk ci réew mi. kon moom bu Serigne Bara jëmbatee nit am lu mu def ci moom kookee fekkoon mu sàkku ko ci moom mu fekke woon jataay ba jiitu woon loola. kon moom amul yenn yitt lu weesu lu sëriñ baara laaloon waxoon ca defoon ca sëriñ Moustapha lam cay wax mooy la ci sëriñ baara waxoon sëriñ Moustapha amul lum ciy def lu dul la ci sëriñ baara defoon sëriñ baara da cee ñaanoon jëmbatoon ci suuxatoon ci loolee mi ngi koy feddali digganteem ak moom di ko jaarale ci sunu kaddu di ko sant di ko gërëm ci taxawaay yu rafet yii nga xamante ni taxaw na ko fi te di ko ñaanal ci réew mii nga xamante ni la yàlla teg ci loxoom li mu waxoon Serigne baara dégg ko ak li ko Serigne baara tontu ku ne dégg na ko mu di ko dénk mu gën a bàyyi xelam ci li mu waxoon Serigne Bara waaye mu gën a bàyyi xelam ak xolam ak yéeneem ak i pas-pasam ci li ko Serigne Bara tontu woon. monsieur le ministre mu ngi lay yóbbante loolu ndax ki waxoon ak moom ki doon waxal sëriñ baara te tey. ki war a wattu waxi Serigne Baara wala ki war a wattu ay jëfam Serigne Moustapha mii la nee na mi ngi koy fàttali kàddu yi mu waxaloon boppam ci kanamu Serigne Baara ak li ko Serigne Baara waxoon mu dégg ko nee na mi ngi koy gën a soññi mu jàpp ko te dolli yërmande ci askan wi te dolli yërmande ci taalibe Serigne Touba yi te xew-xew yii fi am bu yàggul rawatina xat-xat yi nga xamante ni moo am ca bërëbu jàngukaay bee nekk ndakaaru ñu naan ko université. mu ngi ñaan Cheikh Madou Lamine ci bisam bii yan na ca yàlla sotti ndox mu sedd ba mu sedd guyyu te dara bañ fa tàngati ak feneen fu mel noonu ci réew mi te gànnaar euh, Casamance gii coow la fa nekk di lu yàgg lool mu ngi ñaan ci màggug sëriñ Baara Mbacke yàlla mi nga xamante ni moo mën a seral mbir yan na fa yàlla def mu sedd guyyu ba. jàmm ja nga xamante ni la dox di ko fa wut yàlla jàppandal ko yàlla yëwanal ko ci doole Cheikh Amadou Lamine Bara Mbacké Falilou ndax bis bi àttan na ko bu loolu jàllee mu ngi sant président sa Seck mi fi toog ndax nim ko junje woon sànq euh, rek moo tax mu koy sant mooy moom ci boppam moo waxaloon boppam ne yëg na ni Serigne baara am na yeneen doom yu santul Mbàkke te moom jàpp na ne ca doom yooyu la bokk loolu moo ko boole ci bis bi te ba mu ko waxee ba léegi ñu ngi koy dundal kemtalayal kàttanam kon ñu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaay yi nga xamante ni weesu na ak bu tey bi tey séentu yu rafet yi jëm ci kanam di sant ma dikke ñan mi nga xamante ni ci njabootuk sëriñ baala la bokk ndax dundoon na ko ak sëriñ bi sëriñ bi dundoon na ko ak moom ba njaboot gi yëpp xam ko di jottali tamit ay kàddu yoo xam ngi koy yóbbante ma dikkee mu jëm ci président Ablaye Wade taalibeeb Serigne Touba ngir bi fi Serigne Bara nekkee mu nekk fi euh, sëriñ bi naam li ëppoon ci ay yitteem mooy ñu dimbale askan wi. li ëppoon ci ay yitteem ñu taxawu taalibe Serigne li ëppoon ci ay yitteem mooy nu réew mi yokkee te am jàmm te li ëpp ci ay mébétam wala ay yéeneem yamu fa bàyyi bokk na ci ñaari màndarga yoo xamante ni du raf du raaf ba mukk muy jumaay Masaalikul Jinaan ji nga xamante ni Serigne Bara ko dox sàkkul ko boppam ba lay ca am am ca muy Serigne Moustapha di ñaanal Cheikh Sidil Muxtaar bi yor liggéey bi gannaaw Serigne Bara yan na ko yàlla defal mu yeggale ko jàmm ba yeggale ci yéeneem rawatina lee nekk ca Padoa muy liggéey boo xamante ni bokk na ci yëngu bu Serigne baara doon yëngu ngir gën a taxaw taxawaayu taxawal islaam waaye taxaw taxawaay boo xamante ni bii ku ko gis wala ku ko dégg wala ku ko séen xam ne kii sëtub Serigne Touba la waaye kii taalibub Cheikhul Khadim la bu nekk ci biir kër Serigne Falilou boobee ci loxoom la jaaroon ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm te di ñaanal Serigne Abo mi nga xamante ni bii moo yore liggéey boobee yàlla mi mën a yeggaleel nit ay yéeneem te rafetal aw doxalinam yan nag ko defal nu mu kawee njortam ci barkeb Serigne Falilou. nekkoon nag ñu ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba. yàlla na sunu borom dolli leeram taas nu ci barkeem nee bàyyi fi njaboot gi mu fi bàyyi ñu yàgg koo ñaanal gannaawam ne di xamal nag sëriñ Serigne Moustapha itam ni ko képp ku fi ñëw rek ne cant gi moom la war nee diggam ak sëñ Baara waaye mu di la ci wax lu gàtt di la xamal ni képp ku fi ñëw. da ngay fay si bor. dangay fay si bor. waaye lebal si woo ko. waaye lebal woo ko. koo fi gis rek. ne koo fi gis rek. Cheikh Mamadou la Baara. Cheikh Mamadou Lamine Baara. ji ko ci teraanga. ji na ko ci teraanga. akug yëg. akug yëg. bala mu xettali ko. bala mu xettali ko. ci ci saahir ak baatin. ci saahir ak baatin. ndax Serigne Baara. ndax Serigne Baara. dafa doonoon jëmm joo xam ne. dafa doonoon jëmm joo xam ne. dafa mel ne waajuram wu tedd wa. dafa mel ne waajuram wu tedd wa. li mu waxoon rek. la mu waxoon rek. lastu bi faa'ilin illa al-muru'a wala abghi al-amaanata min shafi isi sufaha hum sharrul bariya Cheikh Mahmadul dafa waxoon ni dafa doonoon jëmm joo xam ne dafa doonoon jëmm joo xam ni ne ku yéeme la woon te bari kaf nag daa wax ni waaye dadaa wax ni lu ma kafe rek lu ma rek day dëppoo mbañum rus day dëppoo mbañum rus eh, Cheikh Mahmadul ne daana seere ci Serigne Fallou ni Cheikh moom Fadal day jëmm la joo xam ne jëmm la joo xam ni lu mu kafe rek yàlla lu mu kafe rek yàlla def ko kooka nag falab cëriyam ne wilaayaam la cëpp dafa nekkoon ci làmmiñam waaye sëriñ baara mi itam jëmm la joo xam ni ku ko xam ci baatin doo soxla sayiram ne image yi ñu doon wane nag firi na ko te jëf moo mën a yóbbaale wax waaye wax du yóbbaale mukk jëf kon ñu ngi koy ñaanal ci barkeb Serigne Touba sunu borom dolli leeram ndax moom jëfam ba àddina tukki kenn du ko fàtte kon li am solo jikkoom ju baax joo jile nga xam ne àddina sépp seede na ko ñëpp roy ci te fexe ba góorgóorlu ci ba keroog ñu di ko fekkee di soññ nag nit ñi nag ñu xam ni nit boo nekkee ak moom ba gisatoo ko war ngaa fexe ba wëllëre ga doxoon sa digg moom nga di ko mottali ne sëriñ Abdou Khadir daana wax ni nituk yàlla bu nekkee ci àddina di la xoole ñaari bëti yërmande. di la xoole ñaari bëti yërmande. boo demee ba gisatoo ko boo demee ba gisatoo ko. bët bu ci ne bët bu ci ne. suñu borom da koy ful. nee na képp koo xam ne. nee képp koo xam ni. yaa ngi jokk wëllëre. yaa ngi jokk wëllëre. sa diggal ak njabootam sa diggal ak njabootam. dañ koy gis. képp koo xam ne dong nga seen kër. képp koo xam ne ki dong nga seen kër. te daa fa ñëw te ñëwatoo fa. dañ koy gis. kon nag ku sax xel dem ci ni. ku sa xel dem ci ni. da nga leen fekki. da nga leen fekki. war ngaa fexe ba di ko rafetal. rafetal gi nag. mooy jokk gi. nu ko suñu borom santaane. te Serigne Touba. danaa wax ni. adduna. du jag mukk du jag mukk. waaye du yàqu mukk. kon lu agsi lu ne. kon lu yegsi lu ne. na nga fexe ba rafet ca. rafet ja nag mooy loolu. kon ñu ngi leen di ñaanal. di sant sëñ Moustapha bu baax. ci taxawaayam. ndax. fanu waajuram tegoon fanu waajuram tegoon rek. ci nekkam ci nekkam. foofa la ñu teg. ba mu ko gisatul ba mu gisatul sëñ sëñ Baara itam. ne sedd na ko cër bopp. dafa ëpp. kon mi ngi koy sant bu baax. cant gu amul tàmbali. waaye amul fu mu yem. ndax. mbooleem lu ko war ci sëñ Bachiru. ci jàpp. ak fonk ak wëllëre. ak teg ca kaw. dafa ëpp kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal itam ci barke waajuram jataayam bi yàgg lool te rafetal na ko mboolem ku dëkk ci dëkk bi te bokk ak moom Serigne Touba wala nga bokk ci seexi Serigne Touba yi wala nga bokk ci taalibe yi ñëw nga fi. bari na ci loo xam ne bari na ci nag it loo xam ni li waajuram di baax baax bu ko sàmmut woon ku ne da nga koy dund sa kër waaye sa jukko ak sa yitte ak sa taxawaay moo tax jataay bi mel nii te boo fi téye woon ñi itam dem ba tey képp ku bokk sëñ Tuubaa ñëw na fi woyofal ko woyofal ko ak li ngay faral di wax ak li ngay faral di wax rek sëñ Baara mbiram lépp dafa dugg ci sëñ Fallu nekkoon fii kenn du fi xaj waaye yàlla na yàgg lool yàlla na suñu borom fayal nu ko fayal ñu la sa taxawaay ak sa yéene ak sa jëf ci nun ñu di ko seere àdduna sépp di la xamal ni sa waajur fa mu ñu tegoon sa waajur fa mu ñu tegoon damay wax ne danga koo yokk day wax ne danga koo yokk waaye wàññiwoo ci dara te am na firnde yu bari yoo xam ne ñëpp xam na ko. ndax yow yàlla bind na la. ne yow yàlla bind na la. ku amu fit nga. ku amu fit nga. ku laabir nga it nag. ni nga nuroo sa waajur ni nga nuroo sa waaye ku dëggu nga ci. waaye ku dëggu nga ci réew ku dëggu ci li ngay def. ku nga ci li ngay def. kon nag loola. kon nag loola. ñëpp xam nañ ko ci yow. ñu ngi sant sarak yëpp. rawatina sa jëwriñ yi. sëñ Cheikh Ndindi. ak sëñ naa ak sëñ Galas Kaltoom mii nga xam moom nga tegoon mii nga teg liggéey bi ci loxoom te mu rafetal ko lool te kàddu yi mu fi seede loola la ñëpp di séentu ndax ku sañoon euh, lu mel ni am sa kër te ñëpp àndandoo booloo nekk benn te kàddoom gi firndeel na ko kon moom it ñu ngi koy sant bu baax ne loolu rek mooy seen njëriñ. ne sëñ Abdou Lahad Mbacké daana wax. danaa wax ni danaa wax ni. sa kilifa sa kilifa. loo ca fekk rek loo ca fekk rek. loolaay sa muur loolaay sa muur. kon yoon wi kon yoon wi. noonu la ko Serigne Touba noonu la ko Serigne Touba tëralee. mooy ki mag jiitu. mooy ki mag jiitu. ka ca war a topp topp ca. loolu la ko sëriñ bi doxalee ba mu si fii kon ñi ngi ñaan sunu borom ñëpp gën cee góor góor di rafetlu bu baax bis bi tuddee gi ñu ko seex Cheikh Mamadou Moustapha moom Cheikh Mamadou Bachir moom it mu doon jëmm joo xam ne ji taxawaayam ñëpp xam na ko ndax sëñ Moussa na mu doon dundee sëriñ Touba ak na mu doon dundee taalibeem nee sëñ Abdou Khadir mas na ko seedeel ni sëñ Moussa Bachirou de taalibe gi biir ak bittee ci yem ci mbooloo akuk wéet te noonu mu ko doon dundee ni la ci yare njabootam gépp yare ci kër sëñ Bachirou kon bu ngeen defaatee nii boole seen bopp dajale loo xam ne lenn rek dajale loo xam ne lii loolu ka lenn la lenn rek la loolu daal moo doon bëgg-bëggu sëñ bi ndax sëñ Touba ñaan na ko boromam ba suñu borom may ko ko fàggul ko ko kon képp koo xam ni yaa ngi jéem a gàttanu ñaan gi ñaanu Serigne Touba sunu borom dana la defal la nga bëgg dana la defal tawféex kon nag lii ngeen def loolu rek la ndax li ñu bokk muy Serigne Touba mënee su ko séddoo lu ñu mënta séddoo nag des lu des koy rafetal rek des di rafetal bokk ga kon ñu ngi sant bu baax lépp di ko rafetlu di ñaanati mu gën a rafet. ba nii mu rafete ba yegg si fii sunu borom gën koo sàmm ndax mbirum sëñ Touba doonu ti pexe ñaanu suñu borom la ak jëf ju mu liggéeyal boromam ba mu yegg si nii kon nag doomu aadama lott na ci jéem ca man dara kon li am solo rek mooy yéene ko sëriñ Touba jariñoo ko ndax moom suñu borom noppi na ci mbiram ci léppam ne bu fekkonte ne ay pexe la. ay pexe mën na ci ay pexe mën na ci Serigne Touba dara. kon yoon wi du yegsi fii. moo tax ku xamul mbirum Serigne Touba. yaay xalaat ak a tiit. ak a jàq. waaye Serigne tubaa fagu na lépp. ne waxoon na sëñ Modou Moustapha ni ko. ni ko xamal sëñ Modou Moustapha ni ko. yoon wi day. noppi naa ci lépp. maa ngi mel ne. maa ngi mel ne. rab gi nga xam ne. rab gi nga xam ne. dafa def ay sorom. dafa def ay sorom. ba mu jekk ba mu jekk. mu denc ko ci barab. mu denc ko ci barab. lu soxlaa génne bu soxlaa génne rek. lu soxlaa génne. lu soxlaa génne. bu ko jamono laajee. bu ko jamono laajee. mu génne ko mu génne ko. ñëpp ni lii ana fu ñëpp ni lii ana fu ko dencoon. kon sëñ Tuubaa mbiram. kon sëñ Tuubaa mbiram. lu sotti la ba noppi. lu sotti la ba noppi. te waxoon na ni. te waxoon na ni. ci njaareem. ci njaareem. la ma borom wane. li nar a xew sama ginnaaw ba ma fàggu ko. bilaa afati wala kadarin bilaa afati loolu ne loolu mooy gàkk-gàkk. ne loolu moo di gàkk-gàkk. ak nax-nax ak nax-nax. du am ci yoon wi du ci yoon wi mukk. kon nag booy boo seen xel kon booy boo seen xol dal. sëñ Modou Moustapha daana wax ni. ne Cheikh Moustapha daana wax ni. li ma Serigne Touba dig. li ma Serigne Touba dig. ma teg ci sama bët ma teg ci sa bët. li ma li ma li ma dig te gisaguma. li ma dig te gisaguma ko. moom laa moom laa gën a gëm. kon nag. ñëpp foofu la ñu war a ñëpp foofu la ñu war ne. te xam ne te xam ni. li weesu. li weesu. te mu diggee ko te mu diggee ko. kenn mësu koo xalaat. te kenn mësu koo xalaat. te meloon na lu noppi ba noppi te meloon na lu noppi ba noppi. ni gisee loola rek. nañu gisee loola rek. li ci kanam it noonu li noonu lañ koy gise Serigne Sonia bu daan na nett. nee Cheikh Sonia bu daan na nett li. yoon wu mu nekkee ci njaareem. yoon wu mu nekkee ci njaareem. Eh, waxtu takkusaan. nee mu génn waxtu takkusaan. fekk dafa bëggoon dëkkub Touba lool. fekk nag sëriñ bi dafa bëggoon dëkkub Touba lool. ku masaan gis nga jóge fa. ku masaan gis nga jóge Touba. balaa wax ak kenn balaa wax ak kenn. day wax ak ka jóge tuubaa ba noppi. mu ne ana ku jóge ca sama dëkk bu. mu ne ana ku jóge ca sama dëkk bu sell ba. na jege si na jege si. ba mu agsee ba mu yegsee. sëriñ bi ne ko. bi ne ko. nu ngeen def ak sama dëkk ba. nu ngeen def ak sama dëkk ba. mu ne ko ah, Mbàkke dafa dëkk baa ngay ñàkk ndox lool. mu ne ko dëkk baa ngay ñàkk ndox lool. sëriñ bi ne ko loolu de dox na dox diir bu gàtt ndox ma dana fa agsi ndox ma dana fa bay walangaan bay kooka def ko xamadi waxin kooka ko xamadi waxin ne ko ah, loolu di mbàkke xanaa ne ko loolu di mbàkke xanaa ku gudd fan loolu doo ko fekkee ku gudd fan loolu doo ko fekkee sëñ Tuubaa ne ku gàtt fan du fekkee dara sëñ Tuubaa ne ko ku gàtt fan du fekkee dara ne yàlla ñu ci yàlla musal diir bu gàtt la ca def diir bu gàtt la ca teg daal di faatu kon Serigne Touba Serigne Touba léppam lu sotti la léppam lu noppi la léppam itam lu noppi la ñaan ci darajaam kon ñu ngi ñaan ci darajaam yàlla ñu téyel boppam yàlla ñu téyel boppam te nangul ñu suñu taalibe dencal nu ko fu yàq yëgul balaa jeexal itam nag mu nuyu kilifa yi fi teew tàmbalee ko ci ministre Omar Gueye moom mi nga xam ni moo fi teewal président de la république Macky Sall di ko yóbbante kàddu yu nuyoo ngërëm jëme ci moom ak ngërëm jëme ci moom ndax sëriñ Baara lépp lu ko nit defal rek lépp lu ko nit defal rek Cheikh Sidil Mokhtar nga ko Cheikh Sidil Mokhtar nga ko defal luñ ko defal itam luñ ko defal itam yoon wépp lañ ko defal ñu ngi koy nuyu kon bu baax di nuyu jarba suñu jarbaat bi mu àndal Khadim Diop di nuyu préfet ak sous préfet ak mboolem ñi mu àndal di nuyu itam sunu xarit Idrissa Seck ne ma ak Idrissa Seck lu yàgg la ne ëpp na fukki at ak juróom ne loolu diggante bu yàgg la ne nii ko Idrissa seere rek noonu la demee di nuyu itam maître ma dikkee ñang moom it moom ma dikkee suñu diggante ak diggam ak yoon wi ne àdduna sépp xam na ko ne diggam ak sëñ Baara ne xam na ci lu bëree bëri. lim ci seere wax ko. ne lim ci seere wax ko. lim ci waxutu ko. lim ci waxutu ko. sëñ Baara nee na doom la ko jàppe woon. fonkoon na lool ma dikkee. ne ko amoon ci ma dikkee yërmaande la. ne yërëmoon na ma dikkee. te fonk ko lool. ne koon ma dikkee moom it ñu ngi koy sant. di gërëm ñu fi teew ñëpp. di ñaan ñu teewaat fi na gën a déwén. ak jàmm. te it ju fi waay indaale woon sunu borom faj ko bu dee jàngoro yàlla na ko sunu borom saafara bu dee ittee yàlla na ko sunu borom faj ci darajee bis bi ak darajee ki ñuy defal bis bi ndax gëm naa ni darajaam attan na lépp kon ñu ngi ñaan ci barkeem li ñu ko yéene rek yàlla ko sunu borom def wasalaam ñëpp na ñëpp tàllal Mbakke nga ñaan amin bu ñu paree ñu may kilifa yu ñu génn amin Mbakke